leen kali buy laay fati na koy gaawal waaye ñu dagg ko ndax ma jël su joxee na ma abal <laughs> match de football la passante owante leen indil leen ma kali suma xarit bi ne leen ko buy live nag gaaw day yéex dafay nekk di wax di wax di wax di wax rek ah waxee tuuti da bàyyi na wax tuuti mu may ma tuuti ma ñëw looloo gën na moo ah. ah, looloo gën wax leen ko muy gaawal live fi waaye Milano, Milano. bu ne ak sànca boppam cas par cas <laughs> duma ba génneem <laughs> su may modérateur fii amul miit kenn bu kenn miite kenn bàyyi leen ku ne liberté d'expression démocratie ku ne na tappate lu ko neex du ma jël kenn nit pour mu soxal ma am naa làmmiñ damay réplique te li ma waxoon dootuma ci dellu ci beneen laay ñëw mais beneen yoon bu ngeen demee ci kal suy wax ne leen ko mu gaaw waay 30 minutes na ma may 30 minutes looloo neex <laughs> waxal leen ma ko loolu aadamoo mi dugg ci kaa bi mbaa dina ma ñeme woo mu ne benn ma ne ñaar bu waxee ma déglu bu waxee ma déglu ko mbaa aadamoo ñeme na loolu bu ko ñemee ne leen ko mu woo ma waaye <laughs> ne leen ko dinaa teew <laughs> jël na avance aadamoo <laughs> ne leen ko ma may tuuti parce que objectif laa am damay tegee kaliboor ba boobu tegee boor bañ xam ne victoire bi ma ñëw ci moom ndax aadamoo mos naa xuloog nit am defet ci internet bi na ko pour la première fois ci man mais suma objectif di ko détourné de gis na coow li bëri daal mu bugg cee dugg def na vidéo bu nice <laughs> you know daggal ma asubi bu rafet <laughs> wax ci papa yaay <laughs> na ko maa ngi koy nuyu na continuer ba ma pare ci kali dinaa ñëw ci moom na ko bu dellu ginnaaw déjà waale yaa mën a milaan déjà milaano Cheikh bi lay wàlli yàmban kale lay tuumal lu ñaaw rek mais na leen gisee sañse bi légèrement ni may feetoo victoire bi dégg gaawalal mbalax ma mbay si dooxal dooxal waaye <laughs> nuyu leen ma mbës waali maa ngi lay wuyu si waali foog ma wuyu la dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg racakit gigi cak-cak wow pak pak pak biig biig rabax bilaay seet si naa la <laughs> mariage in maar <laughs> suma doom Zeynabu Wali dalaa bëgg moo tax bi la kali tuumale mu naqare war na laa wax loolu ñu la siise commencé gu ma woowante leen na leen ko mu jëw ndaw mu ñëw jël ndaw talam ci xew li sœur waaw waaw Waly yaa mën a woy c'est Ahmed seet nañu tey seet si nañu tey moom si seet fii la fii la Cheikh Ahmed seet si na ma tey seet si nañu tey Abdou Nour Cissé mais fii la fii la lii la Ahmed di feneen naan la ma jag gin uyul yi ne na ku ma lekk dee ku ma naan bandi ku ma rey génnum réew lendemain numbeew Ahmed Cissé si sa gaari njarmeew ay waay <laughs> nga ne ah, raw ca ca ca gi gi rëma <laughs> amul buuxante def leen dànk ndànk jël seen place waaye na lépp ànd ak dégloo s'il te dégloo rek laa leen sant méttiwul man la ma waxoon duma ci delluwaat damay tontu benn par benn indi beneen bu bees <laughs> fekk dégguma RIP ci kali duma bàyyi <laughs> dégg naa dafa xamoon ñu évacuer ko <laughs> bi ko ambulance bi di dellu si mu toog ci mbedd mi ne day live ma ne ko mayoo ma ñëw déyegoo sax uyul waal yi nee na sañ-sañ bi ak fit wa ak ñeme dëgg ga Cheikh Ahmed woo naa la ah. na ma tey seet na ma tey ba ba siise fii la fii la fii la Ahmed sa déjà waaw maa leen di nuyuwaat beneen yoon. Hmm? di leen wax ne Soukaly di live ngir yàlla wax leen ko muy gaaw nay gaaw ndax su paree rek dama bëgg a yéeg su paree dama war di yéeg yéen ñi may partage sa live bi jërë ngeen jëf fonk naa leen kalifon euh, booy bëree ku la man yaa ko tey dalay duma daan la danga doon jaay ose ak dëgër fit toog sa kër di seetaan suma live yaag sa jabar moo tax daxaar na sa ndey ba nga génn kër gi dangeen doon coow mu ne la soo génnoon mu wowal la pëlis nga dem ci mbedd mi fa nga commencement à la fin sooy jotee bul jotee ku la xam te am audacité waxal la lam la xamal sa jabar doful nit ñi ci biti mën nañoo jaawale wax ji mais moom sa jabar buñ waxalee jëkkëram dëgg daf koy xam buñ waxalee jëkkëram lu dul dëgg daf koy xam yaa ngi dégg non simis bi dama ko oyofal nii rek victoire bi la comme bureau de vote yëpp laa gagné ma def simis bu soft war a ñëw jëlaat kalifon benn par benn moom mu ne dégluwul ma te mu ngi doon tontu mais man duma fen walaay déglu naa la kali bi nga taalee toog ci mbedd mi ak sa blouson bu doxaan ndem ak sa tànk sedd France bi maanaam maa ngi la maa ngi tàngal tey sa yaram ba yëgoo sedd France yaa ngi toog rek nit ñi yërëm la après su ma yaram xam na da xam na xaw na daw mais dama ne doomaram boo ko jekkoo rek téegaleen dem wax ji jeex moo tax damay làbbali <laughs> wala duma bàyyi de léegi bi nga amee problème ak sa jabar wax ni moo tax nga génn ci biti dem di kaa mën ngaa delluwaat ci kër gi da ngeen jote woon mais mayut la nga nekk ci kër gi di kaa Kaliphone pour la première fois ci jote bi nga génn sa kër di live parce que jigéen buñ tuumaalee jëkkëram te muy dëgg xam na buñ tuumaalee jëkkëram te muy fen xam na ñi ci biti nag mën nañoo ñàkk xam mais ñëpp xam neen te yow sa tuuma bi yaa ñëw ba suma life ma jël la ma may la tàngara tatati di wax te nokki woo ba pare ma ne la katt nga may ko deux cent mille may xaritam cent mille nga ne waaw dëgg la yaa ko wax moment boobu sa jabar instinct sam yëgal nañ ko ne yaa ngi infidèle mu wax la nga wàtt ci alxuraan weddi ko ba jox ma ko man nit ma wax sa jabar wax ba wër ko mu gëm ñu mooy bi nga bëggoon a kati aji caare mu cëla yaa ngi dégg su loolu passé Kaliphone leeralal man ak yow lan leen doon def seeraas nag bañ jëndi woon pour dorogee leeralal loolu da ngay dem hors sujet bul di dem hors sujet kaa bi danga koy ñeme su ma la tegee ci accès nga leeral comme yow yaa génne woon kaamil waat da nga waroon a waat waatal ne man ak yow ànduñ bi nga ma booleeg général ma defal ko liggéey bi mu fay ñu 5 millions mu jox ma 2 ma jox la 1 jël 1 ñu séddoo ko ci dégg nga ne ma lii laa bëgg pour door a Gueye loolu waatal ne demuñ seeraas waa seeraas ak ñuy seetaan loolu mënuma ko sos fëkkali mënuma koo sos pour yow nga liggéey Dora Gueye lan laa la waxoon kii dafa am ñu koy ñaanal ñu am kurus boo ko liggéeyee daf lay jàpp liggéey bi del sew amoo sago ci door loolu ba tey leeraloo kaa bi bul di génn hors sujet toppkati yi dañu bëgg di daw di ñëw ci man di dem ci yow buñ paree analyser ku ci wax dëgg ak luy dëgg may leen loolu respecteel déglukat yeeg toppkati kaa yi jox leen cër biñ moom mais toujours hors sujet moo waxoon nañ joxe kàppati ci jumaa ji na ma ko waxee woon démb laa ko waxaatee tey jéggaluwuma soppiwuma kàddu changé wuma virgule te bu jamono doxee dinañ dem ba xam ne dëgg la loolu maa ko wax démb maa ko wax tey beneen ba nga ne kenn musta gis sumay rakk ak suma doom ci internet parce que dama civilisé séparé suma vie privée ak suma vie professionnelle internet bi ñëw ma fi pour taxawàllu damay jaay damay jaay de mais yow looy def TikTok looy def Facebook ñu fay la nga saaga gor saaga ndey Ousmane Sonko saaga papam loolu nga fiy def mais man ku ne xam na ne damay ñëw waxtaan ci katt mi jaay garabu katt am suma xaalis dem ku ne xam ne ittee Cheikh Ahmed ci TikTok bi mais yow looy jaay looy liggéey duma indi suma jabar ci internet du ma indi suma gel ci internet du indi suma doom ci internet tey yaa ngi jël xale bu innocent di montrer visage sam ci kaw internet 1300 personnes di ko seet boroom xel du ko def man famille li ma ci xam mooy protéger nëbbu yar jaarale yoon yow nag boo nekkee homme public nga dem bu ñuy saaga saaga la bu ñuy wax wax ak yow lii mooy personnalité lii mooy nité lii mooy intellectualisme man loolu laa xam su ma doom fi mu toll mooy dem ci daara alxuraan di jàng te ca la ne jigéen la buy tare alxuraan dinaa la kii waaye du ma montré suma visage su doom ci internet lan la fay def àndalaa buri laay jaay naa fa def àndalaa buri kon sa gàtt xam-xam day feeñ foofu maanaam yow dugalatuma la bii mais yaay yow yaay noq sa bopp te doo ko yëg ku mës a gis frère ku mës a gis doomam mais suma frère anam moom ak suma personne suma suma inter suma internet live amul dara lu mu def Euh, beneen ba ca des kali nga ne góor nga bu la neexee kat bañuñ say kat mais danga am ñaari jabar di dem di kat jigéen joo xamul xamoo wér gu yaramam xamoo lu ko jot a solo protect loolu doo protect doo protéger say jigéen beneen ba ca des nan nga war a doxaanee jigéen ne yow sa jabar ji nekk France këyit a tax nga takk ko papier mais loolu dafa ñaaw fii ñun nandite leen ku ne xam na ne di nga sëy góor ngir papier dinga nga sëy jigéen ngir papier loolu c'est normal mais wax ko moromi jigéenam loolu c'est une insulte you insult your wife joxoo ko benn personnalité dëgg dëgg dëgg sa jabar ji nekk France moo ay mer doxaan sa ndey ci biti de moo ay mer de parce que danga ko ormalul ormaalu loo ko dara ki nekk Sénégal doo ko yóbbu fen moom mu may dégg ba pare xoolal sa fen bi nga fen nga ne sa jabar moo la wax ne man damay wax lu ñaaw ci internet bi mais sa wax ji da nga daanoo même ma analyser la ko mu doon trois 0 sa jabar bu mu nee jur doom ak ku saaga ndeyi président de la république ba ne Macky Sall dañ koy màccal kooyam bi ci biroom pour soo ragaloo sa jabar mun a sëye ku taxaw di sosal yaayu Ousmane Sonko ak papaam di ubbi bajoom nga koy laal ba muy la jural doom war mun a nangu nga ànd ak boo xam ne olof ne koy mu ne koy ne kat mu ne kon sa wax jooju is not coherent àndul bu sa jabar mu nee sëy ak yow Kaliphone war laa mun a permettre na nga ànd ak man wax jooju is not coherent waroo ko woon indi bu ma ko analyser da ngay daanu wax bu doon lekk la dama deseeru te man xajuma sa kaw te dama lay lekk Kaliphone nga ne sa jabar mu ne waroo ànd ak man ndax man damay wax lu ñaaw ci internet bi yaa ko wax léegi ma seetaan la déglu la wax ji bu dee dëgg la sa jabar su mu nee ubbi bajoom nga kat ba ngeen jur ay doom yow mi saaga président de la république ba ne den koy màccal kooyam dëgg-dëgg war a mën a nangu nga ànd ak man kon foofu incohérent daf fi am nante xam ne wax ji jubul muy benn sa jabar jooju nag man dama ko yërëmoon ndax yow dang ne jabaru mbokk la tànnaloo ko sa bopp danga war a taawloo alpulaar nga aawloo alpulaar nga nga aawloo ko ki nekk fële maanaam yow jabaru mbokk nga am ak jabaru papier mais amoo jabaru choix jabaru kayit nga am mooy franco sénégalais bi nekk France ak jabaru mbokk mais ñekk am choix moo tax ngay wër di katte moo tax toujours dama koy wax ma ne takk leen ku leen mat seytaane ndax ngeen mën a tiye seen koy seen biir kër toujours ma wax ko mais jabaru mbokk ngam ak jabaru papier ba tey amoo choix moo tax ngay wër di katte di maye dix mille kali bàyyil maye dix mille bàyyil di maye dix mille baaxul beneen ba ca des li may wax ak yow yépp kali li ñuy wax yépp musuma yéegal nit suma live muy wax man duma ko def xam nga lu tax damaa xam li may wax mën a wax wóolu suma bopp si sumay matériel man kenn rekk ma téegal la te toujours da ngay utiliser ay jigéen ñuy wax bul def loolu mais booy jël jigéen sa nga jël jigéenu royukaay jigéenu valeur jigéen bu am tuuti personnalité nga xam ne bu ma koy tontoo xam fu may tëbb waaye koo xam ne yàqu na ba pare loo ko wax waxit la ko kooku franchement duma ko mën a tontu duma ko mën billaay ah, ma sax mais dama dul mën mënuma je peux pas duma mën duma man duma jël kenn man kenn rek lu ma wax duma ca dellu mais jigéen bi yéegoon dëgg-dëgg seexlu naa koo tontu parce que su ma waxee lan laay wax I don't know su ma suñ ma ne waxal lu may lu may wax duma mën maa ngi koy félicité di ko sant ci folo bi may folo ak bëgg gi ma bëgg cofeel dafa foor te xam nga nag affaire bi neex na neex boo xam ne ni ko gars yi di déggee naan borom ànd laa ko ci ñamu da ngay cawti cawti di sat damay comprendre xaw <laughs> ma dee réewu bàndi <laughs> comprendre ne loolu la rek quoi mais ça bul di yégal ay jigéen nag kali man la yow la ñoo daan ànd beneen bi nga ne sa waa kër yi kali seetaan naa la de nga ne sa waa kër yi den la doon wax ne bul ànd ak man kali nga ne lu tax tudduma sa waa kër yi tudduma leen parce que nawloo woo leen kalifon fi sa mbokk yi jaar ak yow sa yaay génn àddina ca xale sa mag yar la doon sa yaay doon sa baay jaar yow fu baax nga të nanguwoo jàng parce que amoo benn diplôme Cheikh Ahmed Cissé bañ ko bëgg ko am na xam-xam te da koo jàng yow xam nga ko seede nga ko nga doon góor góorgóorlu di liggéey sa mbokk yi yow palaas nga dem France ñëw musoo maa xam lu mooy internet nga xeeb say mbokk ngir seen kër rafetul sànni sa àndandoor yi démb ñëw di ànd ak man bi ngay ànd ak man mosumaa dem sa kër ndax man su may niti démb ñooy suma niti tey awma xaritu tey suma xarit yi ma doon àndal Babacar Diaw bi ma nekkee xale Mbay Diaw maam Omar bi tey oustaz Malick suma baay ñeey sumay xarit ca ca démb la woon musuma ñëw sa kër bët bu set nga yaabar yaabar ñëw suma kër boo kattut yaa ngi live boo live fut yaa ngi lekk ndax man su ma amee ak su ma amul lu neex rek laay lekk xajul su ma purux ndax faris la kon yow sa waa kër yi war nañoo xam ne respecté woo leen nawloo woo leen jugee France ñëw war a toog ak sa famille passé temps ak sa jabar sa doom yi nga bàyyi ginnaaw nga di leen fóon jox leen affection papa ak doom téye leen teg leen nga fier sa kër baay lu mu tuuti tuuti lu sa baay góorgóorlu na ba ko fa nga juddoo te kali mag nga ma ñeenti at ndaw soo su ñëwoon naan bi <laughs> xamal ko ne yaa ma mag waaye moom moom day dem hors rek nga mag ma ñeenti at xamuloo ma bi ngay sonn fekkewuma ko duma sa xaritu démb internet a ñu boole nga mën a gàddaay sa kër ak mbokk num neexee mais fan leen daan tase suma kër fan suma saal yaay yóbbu sa yaay indi sa cuucu bu ndaw seet si ma yaay yóbbu sa cuucu bu ndaw dem ñibbi mais xanaa nit bu la nawloo ngeen di ànd au moins dina taxaw sa bunti kër ànd naag yow bañ jàpp la kaso ba tëj la musuma taxaw sa bunti kër premier jour sa jabar ju xesaw ji nga wax yow d'après yow yaa ne dafa xesaw ci laa ko doon jël xeexal ko pour nga yóbbu ko Pape Diouf mu enjoy mënta téye saak mënta taxaw bu windeeloo ma foog ne dee daanu ma téye ko naan ko moo na ma nekk ça va mu ma oui oui mais kenn jegewuñu suñ taabul ba dafa yaa yaraax te ku ma xam bu ma demee soirée taabul ba day yaatu mais nag dafa am lu neexuta muñ kali mhm. dafa am loo xam ne neexuta muñ quoi mais respecté woo sa famille nga jugee France mbokk nu mu neexee ñaata at nga am France nga mën a dem kër Cheikh Ahmed suba yaa fa bëccëg yaa fa ngoon yaa fa guddi yaa fa yaa fa heure bu ne xeeb boobu nga xeeb sa famille ba jëndee ma leen tas defaluma la lu ko jar moom nga xeeb sa famille ba door a géey bi mu la ñamalee xaalis nga tuddee ko sa doom bu góor bàyyi sa mag man de suma doom xam nga ku ma ko tuddee su ma rakk su ma doom mi bàjjan ki ma tuddee suma doom yaayam ak suma bàyyi bokk ndey ak bàyyi maa ko tane maa ko ëppale moom ay ñaan du ma ko ñaan moom laa tuddee suma doom ndax mbokk dafa foor te lu mel ni doom bu la ko yàlla wërsëgale boo ko tuddee wut yonent bi tuddee woo ko jàmbaar boo bëgg mu doon jàmbaar waaye tuddee ko sa mbokk day rafetal mbokk ñu xale bi duñ koy bébé dooro wala papa dooro wala doore kalaare wala dooro rakki waa xale bi ni ñu ko wee door a rakke wala door a kanaara maa ngi jégalu kar yi dama doon kaf nii rek bébé MG wala wala bébé DG xaw ma maa ngi maa maa ngi jégalu kooku suma doom la waru ci woon a dugg franchement damaa weere damaa weere pardon maa ngi dama bëgg a xam rek suma doom bi maa ngi xam nga xam nga suma xarit nga tu es mon mais bébé PDG wala bébé nanu mu nga xam rek comme tey bu ma ñëwoon fara seet suma doom ma mën a xam DG wala bébé Raki wala nu ma ko tuddee quoi dama bëgg a xam I just want to know I'm asking I'm sorry I'm sorry I'm involved in your kids in this <laughs> whole drama I'm sorry mais Wally mën na wéy lii ku ne neexul da nga cee bokkul mbaa nga si ma fi di ah ma ne ko ah may ma tuuti rek ma woo la maanaam xale bi bébé DG leen koy woowee wala bébé Clara Clara wala wala bébé bébé Racky damay laaj. damay laajte pour ma xam suma doom naka laa ko war a woowe bebe nan laa koy woowe kalifon ñàkk xam sa valeur ak dignité weesuwul tuddee sa doom ku ko méritowul ci yow c'est pas Doro méritowul turandoor de mérito na ko mais ci yow ana yow ana Doro danga dem ba am influence mën a am waxukaay moom mu soxla ku ko waxal ndax intérêt nekkul ci génn fës moo tax muy làqu mu jël la di la ñamal ngay saaga Ousmane Sonko nan nga ci war a mun a tuddee nit sa doom mais doom du caaxaan kali moo tax yàlla lu ko neex rek lay def am na ko méritoo doom pour jur sëy ba génn télé yàlla xañ ko doom lu ko neex lay def faalul lima yurid tuddee intérêt tuddee ko sa palaas comme ni nga def kali bu waali loolu baax na sax comme xeeb nga sa baay ba jël turiwaale bi def ko sa turu baay bi c'est bon c'est bon pour toi mais sa doom nag dafa am valeur man suma doom suma rakk laa ko tuddee koo xam ne ci alal yaakaaruma ko ci wërsëg waaye nag ñoo bokk deret ji muy suma jigéen te wan ma ne suma jigéen la wan ma lu rafet lu ñu bokk ma jël suma taaw bu jigéen tuddee ko ko bi mu feree ma dénk ko bi mu paree ma jël yóbbu ci daara ji loolooy mu bokk ku xeeb sa mbokk ko ne fonk nga ko du dëgg dinaa bàyyi incha allah képp ku xeeb sa mbokk koo ne fonk nga ko waxoo dëgg yàlla bu yàlla xañ Doro Gaye xaalis waaye bis bu ko ñàkkoon ci ngay gëj dégg bu Doro Gaye dootoo ko tudd dootoo ko wax man nitu intérêt laay bàkkoo moom laa doon moom laay wuyoo waaye dafa am lu intere fekkeewul su ma mbëggeel ci yonent yàlla Muhammad Cheikhu Tidiane ak Baye intere fekkewu ko su ma mbëggeel ci suma famille intérêt fekkewu ko ñaar yii moom intérêt lalu ko mais jigéen ju may bëgg na la leer na intérêt tax ma bëgg la benn da nga rafet da nga mool da nga cage wala da nga wala xam nga danga ma mat seytaane wala wala wala man nopp la proposé la pour takk la c'est mon intérêt mais mbokk gi ma yàlla tànnal noonu non ku ci baax ak ku ci bon ku ci am ku ci amul suma mbokk nga yonentu mu ne ñaar duñ gis yàlla yomal xiyaam dëkkandoor bu bon ak kuy dagg mbokk Californie xam nga kañ nga dem seen dëkki kaw bi nga ñëwee senegal ba tey mooy bi ñu la tëjee kaso ba nga génn nga ñëw ak sa ndombo yu bari yi tag ko taxaw suma saal bi di lox di wax ak man Kali da am suma complexe yow soo toogee ak man da nga da nga am suma complexe neen dem xool suñu live yi da ngay am suma complexe man moo tax démb bi nga ñëwee ci live bi rek patine réer xamatoon nooy def ak looy def beneen bi yow soo xamoon loo wax ci man walla nga mën ko looy demee di indi ay jigéen lan rek ngay indee jigéen man ak yow kenn du yéeg suma live te duma miite kenn kum neex na message na commentaire lu ko saf kum neex na commentaire li ko saf Kaliphone Doro Gueye na bàyyi xelam ci dara dafa xëy woo la téléphone nga taxaw ci àdduna bi ne woo na la téléphone lépp tey li dooro lëjale ci Sénégal dossier yi nekk ci procureur Abdou Karim ak li tax mu génn Sénégal toogagum benn place pour xool fan la mbiri di mujjee jëflante ak ñu mel ni yow moo tax tey ñu koy tudd ci internet bi di ko mbàcc mbàccee fu ne ñu dagg ko dugal ko dafa am ñoo xam ne waruñoo dugalanteeg ñoom directement indirectement rek Kali képp ku mus a dugalanteeg yow directement réccu na ko ana Gabriel Kane bu la defoon càmmiñ doon wax ak yow Kaliphone benn guddi nga supporté nguur gi bañ daanu ba amadu Ba wax ci même guddi nga defaat live xasaat nguur gi maanaam euh, li tax nit ñi def la mbalit mooy yow dëgguwoo ci mbir man moom si lu ma nekk rek ci laa ne loolu moom ku ma neex ak ku ma naq danga ma koy seede <coughs> duma yëkkati kàddu gu ñaaw jëmale ci Macky Sall ak àndoon ak ñoom parce que mënoo bañ Macky Sall bañ njabootam waaye yow ci bés ba ci guddi gi nga ànd ak Amadou Ba balaa bër di set bi Amadou Ba nangoo nga nekkaat fa ne maa ngi boole ministres seen tool yi dem leen nangam te ministre yooyu ñoo la doon may ba nga mën a toj sa kër baay defar sa kër baay. Kali danga daan liggéey waaye léegi lan ngay liggéey dégg naa la démb dama ko fàtte woon a tontu sama defaruwaat tontu ko xaaral ma teg waale bi tuuti dama lay tontu benn affaire bu soft. wallaay woy leen ma waayi. géej géej géej géej. gir gir gir gir rëdd gir gi jag ay waay rëdd gir gi dégg naa la démb nga ne Amérique duma liggéey man bi ma ñëwee Amérique dama ne li ma gis nit ñi di ko def nii clock in clock out man Cheikh Ahmed duma ko def ndax lañ cay am mu lew leen ñu liggéey seen xaalis ci dëgg man mën naa koo am ci li may jaay te duma clock in clock out moo tax bi ma ñëwee amerig laa gën a leer laa gën a sañse laa gën a nekk ci jàmm laa gën a wér te la ma daan def démb tey laa ko gën a mën a def ci mbaax ak mbokk gi la ma doon def démb tey laa ko dàq def ci mbaax gi ak mbokk gi ñama doon séqal démb noon lay gën a séqal ba tey kon wërsëg ci ñett la nekk ci barab ci temps ak ci jëmm wërsëg day nekk palaas da ngay dox ba teseeg dara nga for wërsëg day nekk ci temps da ngay wut dara ba sonn benn waxtu jot rekk nga am ko waaye wërsëg day nekk ci jëmm am na koo xam ne fu mu dem wërsëg ñëw am na koo xam ne fu mu dem ci jëmmam la yàlla def wërsëg yéen a ngi dégg wala déggu leen yéen a ngi dégg wala déggu ok wërsëg ci ñett la ko yàlla di def ci temps time ci place place ci jëmm in moo tax ni ma gisee nit ñi di liggéeyee amerig fii lu baax la lu noble la waaye loolu du suma combat nit ñi bokkuñ gis-gis ki may wax jëlal kali kali ñëwut a def demande fii de ñëwut de <coughs> kali bi ma ko laay fale rek bunti këram la toog ñëwut dugg ci kër gi ndax joteeg jabar ji nga ne mu ñëw suma laay fii kali xalaatul loolu mbokkam mi den koy yeddu toon <coughs> moo tax mu ñëw rek mais dootul ñëw de kon lii laa doon leeralal kali beneen bi gis naa Adamo mu def vidéo ci man léegi-léegi nii Adamo man suma mbir dama koy teg ci objectif ndànk-ndànk temps par temps dama am bopp bu steady gisoo ku kali jéem a dugal ci xeex bi pour dévier ma ma écarter leen jàkkaarloo kii yaa ngi buruxtulu ne waali ngay supporté ah ah tafal Adamo loo waxut baax na yow boo gisee nit am ay huit mille cas rek sa fit bi danaan rëf ndax yow wii ngay dundee mais dinaa la wax dara Adamo bés bu ma paree ci kali su ma doxaanee ndeem ba mu tegee boor ba àdduna xam ne téegal naa ndeem mu bokk ci sumay palmarès su temps bi baaxee dinaa la jógal dinaa dal sa kaw dinaa la noxu te di nga noppi mais nag duma nekk ci kali rek nga ñëw wax rek ma tontu la su ma objectif kenn du ko dévier yow tamit dama xam li ma bëgg fi Ndeye waxee woon ci man ci biir kaso la 2022 ma tontu ko benn yoon tontuwaat ko 2024 man bés bu rafet laay xaar ci tontu mais kenn du wax rek ma tontu la du may du may joobee noonu du may joobee noonu de. tey mën nga wax yokkal ma vie yëkkati ma tuuti def lu la neex fi nga jaaroon ak say ndey ak say baay ak ay ustaas rek ngay jaar ak man which I really love and really appreciate lu ma bëgg te bëgg ko di ko apprécier nag mais nag dama lay wax ne <coughs> man bu ma paree ci yow aadama dina la benn bennoo di la benn bennoo di la benn bennoo ba nga xam ne yow ñi ngi ko doon séqal mënuñ Adamo yow laay wax tafal suma photo waxal lu la neex mami yaa ngi live bu fekkee sutura ngay wax coupeel ba ma pare bu dee li ngay wax live bi mën neen ko dégg mën nga wax j'ai pas nga nekk def live leer na kay dégg nga nga ne ma j'ai pas compris yaa ma ne maa ngi live maa ngi lay message ni kon Adamo dinaa seetaan sa live dinaa ñëw seetaan la ba mu jeex mais du ma réagir bés bu rafet jamono bu baax ma dugg ci xew bi burox ndullu mais ni nga ko bëggee dévier attention bi dem ci Cheikh Ahmed Adamo doo ko am hmm, du demee noonu de dama am objectif kali suma combat kali mooy suma komba bu ma dëggee ndeyam ba tegee ko boor dina càmbar sa mbir settantal sa mbir ba pare ci yow taalal la live Adamo te duma la saaga duma la sosal duma la xas mais ci laa lay ridicule ba def la zéro logique laay demee kali mooy suma combat jigéen bu mu dugal ma écarté la ku yéeg ma ne leen duma leen tontu kali rek parce que objectif danga koy am ta xam ko ci communication la bokk mais nag boo ma tafee wax ci man jàppal bor bi xamal ne lebal nga ko mën a fay waaye bippe nga ko am crédit tabul bul bàyyi bul dellu ginnaaw man damay xeex ci temps ndax dama bëgg ndam ndam dafa neex bërëx lu nga dugg ci ah dinaa kekk dégg naa vidéo bi yónnee neen ma ko su ma topp katikaa baa yónnee xaaral ma xaaral ma pileel la ko nga xam ne dégg naa la aadama mais ma ma ñëw pour nga xam ne dégg naa la nettali li Kaliphone wax à ce temps bi nga koy may xaalis di ko teral yépp mu ngi wax woykat bi li muy katt sa jabar et puis leeralal sa diggante woykat bi Kali hmm. nee na mu lay ñam de waaw waaw Clara leeralal waay Kali la wax de hmm, moo ko wax de ngeen leeral loolu hmm. man waxaluma waali dara dama nettali li Californie wax rek. wallaay dama nettali waali sama nami. c'est sama frère ku baax la xamaluma lu bon xamaluma waali dara. xamaluma dara lu bon ci at. wallaay tallaay. li ma xam ak moom mooy teraanga mu wéy ma ma teral ko. mu jeex mu sant ma naturellement ma sant ko. Adama ñëwal. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gaa yi ñoo ko déggandoo gis nga wax ju toj job bu ndeyam wax ju bon gii Cheikh Ahmed Cissé yëkkati ko. te jëmale ko ci Waly Ballago Seck ah ak kalaara ak dooro Gueye ci laay teppee cottu ndeyam xam nga Kaliphone nga joteel dangay bàyyi Kaliphone bu ma laa yifee léegi léegi 23h Sénégal ubbi sa lëfal nday Cheikh Ahmed Cissé danaa ŋàyyi sa data nday jën jën yéeg mbóot yeeg butit yéeg lépp rof ko sa digg lëfal tey dégg li ma la Cheikh Ahmed Cissé dinaa dagg sa koyu baay def ko raccord yi si saa opéré sa dambano baay def ko sarbo si sa di ko kat jox la si saa bi ngay tox Cheikh Ahmed Cissé dinaa daakaande sa lëfal ndey tëb lëmbal sa digg lëfal ndey doxat sa nopp ndey fuddan sa taatu yaay jër carno mu lay saw rof ko sa data ndey mu naan kiti saa yaa bolo ya saa yaa nduree teetee sama sii sama ruusi dinaa Afrique mon Afrique Afrique des fièvres guerriers Afrique que sentiment grammaire lu wenten sa digg la fal ndey dooro Gaye lu baax lañ ko xamee garmi la lu baax lay wax di def lu baax du sant nit lu bon du def lu bon réew mi way wu rafet la fi am ñëpp lay dimbali di jàppale ñëpp ñi muy dimbali Kaliphone moo ci gën a ndaw di ko génne ci ay détails ci nii wala ci naa man boo ma bëggee laal laalal ñii Waly Ballago sekk Viviane Chidid Doro Gaye Elimane Lam ku leen laal ma ŋayi sa bunu ndey jël sama pajaat fi rof non dinaa katt sa data nday xaar leen ma ci live bi 23h incha allah dootoo ko defati Ahmed Cissé bàyyil Kaliphone ñëw ci man man combat laa naa ubbi sa lëfal nday waaw Adama ko dégg naa la mais li nga bëgg doo ko mën a am léegi it's not yet time we schedule and choose our battle on time bu fekkee déggoo angale dama ne ñun dañuy jël suñu xeex teg ko ci temps di ko bindal programme di ci dox di ci wax mais pas kumbéj rekk ñu fayu duy demee noonu buñ la mënoo éeg ci étage bi nga yéeg ñett ne mën naa yéeg de maa ngi dem doo dem sa sa énergie day jeex yow doxalal plateforme baa ngi noonu mais sa tontu bés bu baax laay xaar te bu ma ñëwee yow ci nga xam ne musoo xuloo musoo wax ak nit musoo am ku la tontu sa dooro géey boobu ngay xeexal na wax ci blanchissement d'argent yi mu nekkee woon ci réew mi njaayum drop mi katt gu bari gi ak takk suufam bi ci rakki leeralaale loolu adama dama mën bés dama xam nan la ñuy defee bés yow su paasee wax ji dootoo ko am boo laay fee dinaa seetaan dinaa déglu mii bu subaa duma la tontu suma komba ak suma objectif c'est clair c'est Kaliphone nga naan bàyyil Kaliphone ñëw ci man man combat mais bu ma la gañee aw ma ndam boo ma gañee aw ma ndam donc sa combat jotagut xaaral bés bu rafet bés bu rafet ngay xaar bépp tontu booy wër ak loo bëgg dinga ko am mais pas ni nga ko bëggee ah ah ni nga ko bëggee Adamo man ni ma ko bëggee laa koy defee ni ma arrangé laa koy defee ni ma ko sentiree objectif bi c'est Kali point ku yéeg ci live am sa duma la tontu waaye dimbale ma nag balaa nga may tontu nga wat sa cokk yi defaraat joyanti sa koy bi wala ma yónnee la régu nga mën a toog live bu baax dimbale ma loolu hmm? su ko defee Kaliphone <clears throat> tey pen wengalu ma mbax na bi feeling la ci gisoo gars dañ koy bëgg Kali yaa ngi dund moment yu metti mais xam nga lan moo la ko yóbbee mooy bañ a màndu ci deri jaam ñi ak rëy làmmiñ ci loo xamut ak ñàkk consistancy nit dafay dëggu tey bi may wax wax ak ndéygee mu wax ma ma fayu sa yoon nekkul ci kali tudduma la mais danga ñëw tudduma boo xamoon ni lii moo la ciy fekk wallaay doo ko def tey yaa ngi noonu France mu ngi sedd ñu ngi la génnee yaa ngi ci biti ndax sa jabar mayut la nga live ci biir kër gi mayut la nga ci biir kër gi nga toog ci mbedd mi di live sedd bi di la jàpp su ma yaram xaw na daw mais doomaraam jarul yëram waa li nga ne ah mbaa nga dem as eh, mbaa nga dem as demal amari mbaa nga dem as ma ne Mame Mbaye na réew mi Mame Mbaye toj na réew mi da da da da jigi jag dégg leen Wally Samba Dieye la dégg leen Wally <laughs> eh ndeysaan aha man ñu am si jànka jëm eh li muy woy bàyyi ku bëgg bàyyi may ma kër waay yi ma ñëw mooy borom faytu bi déggal sabar gi bëng bëng borom ànd bu ree ngi nii ku ma ku ma xamul laaj ma kali maa ngi nii maam Cheikh sama jéey yi mooy borom farid bi Abdalaaji maam baay borom farid bi déggal sabar gi maa ngi dajji beneen paquet jag baba dana jag gu jag gir gir gir gir bëgg bëgg bilaay moo mën a wéy kon Kali problème bi yëpp nga dugal sa bopp tey tax nga ñu weer Doro Gueye ci mbedd mi yaa ko def coowi Ndeye Gueye ak Cheikh Ahmed Cissé lu si sa yoon loo ci waxee lan nga ciy waxee ah tey sa ñaari jabar yi nga xam ne sa nawle leen buñ demee ba xam ne katt nga ba avoué ko ci internet sa doom war a màgg gis ko internet yaa ko teg sa bopp loo loo duggee ci man man waxuma la man tudduma la soo yemoon sa gen gu ndaw googu toog ci doo dégg yow yaa ma tooñ yaa ma taf yaa ma tooñ yaa ma taf Ndeye Gueye maa dugg kaso mu wax ci man jëkkëram daanu ma wax ci moom un un match ba tas yow nga ñëw taf man ne Ndeye Gueye ngay faral kañ la la jigéen ñor yow mi doon violé jigéen toj kanamu jigéen dóor ko bañ tëj la kaso bàyyi ñaari jeeg ju am lëf di dem keneen ci biir yow kañ la la jigéen ñor <laughs> yow kañ la la jigéen ñor yow mënoo valoriser ñaari jeeg yi nga takk teg sa kër nga ne dangay xeexal ndéggee c'est pas vrai bàyyil jàmbur ndéggee rek leneen suñu ka wax na ma ma delloo ko ko man ku ma tudd yaa ma tooñ képp ku ma tudd ci sumay video yaa ma tooñ man ku ma tudd duma la tudd parce que am na xam-xam bu ma wax am naa feeling bu ma joxe mën naa reetaan loo nit mën naa waxtaan waxtaanal nit mën naa conseil nit dama am bagage man soxlawuma taf nit duma xaar kaa pour am vie man xaaruma kaa pour am vie man may créer sumay audience ñu may bëgg di déglu ba suñ ma déggul feebar den may namm maa koy créer bu laajee sangu ma sangu bu laajee wirde ma wirde bu laajee jàng ma jàng bu laajee wax ma wax ba nit ñi di ma confier seen problème yow léegi xoolal kaa bi rek démb ak tey Californie maturité bi ma la ci jaay ndaw si nga dugal Amérique bu ma ko géré wutoon nantement tey ëllëg vidéo ngay jël ne jigéen ñi yéen a ngi gis ku dem ci moom day uññi sa sutura réglé naa kaa bi ba ndaw si noppi ba nit ñi xam ne waxul dëgg tey uññiwuma ko nantement loolooy xel frère baal ma bul tontu Adamo da nga yëngal kor door kër Doro Gueye de de de wax ak moom ñu jox ko xaalis pour mu saaga la pour déstabiliser la mais bu ko tontu man ma tontu Adamo du tey dina am tontoom mais pas tey pas tey du tey de mais nag dinaa ko tontu bés bu rafet laay xaar fu mu nekk nii suma objectif mooy Kali Falaye Balde mu ne olof dafa bëri tappale boo ko daanee da ngay toog ci kawam ba photo bi ñëw patriote yi bu leen defalati kenn 72 heures ku leen merloo rek woo leen ma ma 72 heures 48 heures yi ma jox Californie xajul ci moom. soixante-douze heures Pastef dafa bari may leen ma quarante-huit rek ma jàpp kenn tégal ko nice kali su ma diggante yoon na seytaane xeeb dolli ba pare bul di dem or sujet del teg kaa bi ci rang toppkati yi gis nga dañuy jënd téléphone yi cher jënd écouteur parce que bëgguñ nit ñi xam lu ñuy def am connexion bu doy jël seen temps pour déglu bul di dem or sujet bàyyil di yéegal nit ñi di leen dimbane ko man la ak yow man damay taal live deux heures de temps wax bu ma wax duma ci delluwaat te lu ma wax nit ñi xam ne dëgg la ngir yow boo amul matuwaay yooyu bul xeex hors sujet bi ngay bàyyi del dugg ci su may wax di tontu takki suufi door a géey bi nga topp kaa gi Dakar Dakar topp kaa gisoon naa la tey ci àdduma ma dem balay bloqué ma ne non yow dama laa bëgg parce que sa passe daf may wéttali ba pare nag juñu nga ko yow Dakar ak topp kaa nit ku sew nga mal dégg nga coroxal Adamo ñaari baat mel ni <laughs> déggut li nga wax Adamo takki suufi Doro Gueye ba rekk ay dara bi nga siiwal wax ci mag yow ba ñu àndee seeraas ngay liggéey Doro Gueye wax ci musuma laa wax danga nga présenté Doro Gueye ay ñag déglul wax ji bu baax dama ne la benn sénégalais ak benn ñag biñ ñëwee soxla Doro Gueye am bagage man ak yow a àndoon ne yow danga ko jege pour nga présenter leen ko man maa ngi fa woon bi ma xoolee xam ne lii dorog la naa dellu ginnaaw bala fa ne la maa ngi ñibbi nga ñëw indiwaale xaalis mosal ma ci dëgg dëgg suma xarit bi xam nga ne sosaluma la loo ma mosal wax naa ko ndax gar du fàtte traga gis nga koo defal lu baax bu koy bu toogee ci public bi di di wax te waxu ko buy lim ay noonam na la ci boole am na ku ma ne jëlal aadamoo nekkut fi Adamo gisuma ko nekkut fi de yow bi wax jëlal Adamo nekku fi de gisuma ko de mais mag Adamo bu leen ko yàkkamti loolu tiro bii la dafa am fu ma làq Adamo damay pare sol suma dara ju ne mut benn benn du am saaga ndey du am saaga baay di ko wax ay bal yoo xam ne musta foog na nit xam na ko ndax dama yàgg jël suma temps ci Adamo te xamu ko xamul lan laa amee ci moom ak lu ma amewul ci moom mais bis bu may tontu na ngeen xam ne leb boru fay te lebal Cheikh Ahmed toogal xaar ku mënta muñ commentaire mënta muñal euh, euh, euh, soppeem lu muy xaar ci ci ci noonam te yow Adamo xaaral ma programme la ban date mooy baax bàyyi ma jox la date bu ma la war a tontu calendrier xaaral ma xool suma calendrier <clears throat> yeneen la april ok mii mu xool ban bis laay tontu Adamo waaw man lii la ni Adamo dinaa schedule sa date bi ma ba ma régler kii ba pare ba pare door a ñëw ci yow yéen a ngi dégg peut-être sa veew tabaski mais xaaral sa heure rek heure bu baax dina ñëw heure bu baax dina ñëw ma génn foo mustaqam Nancy si tey maa ngi la gis ngay maa ngi la gis ngay commenter bañ bloqué la fii moom amul bloqué fii ku ñëw waxal lu la neex mais Kaliphone leeralalal nit yi ngir yàlla ak yonent bi leeralal nit ñi leeralal nit ñi fañ dencoon Adji te mu am garde ban kilifa moo fa demoon guddi mu bugg ko laal Adji na ko dafay gis régal di ko màccal kan la boobu danaa ko leeral suba boo ko leeral rek ma leeral ko xam nga ko xam naa ko yaa ma ko wax yow yaa ma ko wax leeralal nit ñi kooku kan la kan moo bëggoon a katt Adji fañ ko dencoon ci appartement ba te mu amoon ay garde Adji na ko dafay gis régal mu maccal ko mu daanu te laalut ko mu may ko trois cent mille kooku kan la kali dama laajte rek kan la su dee da nga honnête nga waat ci yàlla ak sa njaboot kooku kan la beneen tur la <laughs> te xam nga ko xam naa ko aji saar nga toog suma kër def ko oparlo mu ne ma duma tëddee ndax wóoluwuma ko mais maccal naa ko ba mu daanu mais koy bu baax la yor duma ma sos du ne lu ndaw la am aji saar moo ne koy bu baax la yor màccal na ko ba mu daanu kooku kan la kali ma ne da ngay continuer walla dangay dangay da ruux jënd galaas kooku kan la boo ñëwee suba leeral baax na boo leeralul suba man mën naa wax kan la tu peux continuer mon mon mon frère tu peux continuer suma doomu ndey yow rek lay topp gis sëriñ la la ilaha illallah waaw Wally mi du ngeen wax ci moom ndeysaan déggal loolu ndeysaan déggal lii laa bu li taalibe maam Cheikh Cheikh Ahmed borom ñaari kanam bilaay Zeyna sa bàyyi mën a woy woo leen ma Salimata Gueye ne leen ko càmmeñe ma mën a woy nijaay ma mën a woy laa seet si na ma tey seet si na ma tey Cissé da dag dag gi ba bëgg dag dag dag gi dag dag dag dag gi rek jag jag jag jag gi gi ay waay dag gi gi gi gi jag rek jag mbix pax pax pax bi bi ba pax ma ne kali leeralalal nit yi loolu nit ñi bëgg nañoo xam loolu hmm? beneen ba ca tegu Kaliphone keroog bi ñu demee abis Garden am na benn jigéeni xalpulaar bu fa nekkoon mu ngi soloon robb bu ñuul ànd ak benn xaritam boobu miinuma amatu Sall mu ngi toog ci ginnaaw jigéen ji ñëw ne yow danga koo neex mu waxtaan ak yow ci xalpulaar nga génne sa passeport diplomate di doxaanee jigéen ji Marème fay sàll te nga mujjoon ñëw ci kër gi fekk ko mu ngi nekk ak man xam nga lu mu wax yow neexuloo ko parce que da nga mën a wanewu te da nga rëy làmmiñ ne la Kaleya ah, soo bëggee nga jël de du suma gel de la ziar naa mais c'est bon fàttaliku nga loolu maanaam tey nit yaa ngi ñëw sa live nan la passeport diplomate nga gañe nga am nga noppi wallaay boo waxoon rek ma xam ne doo màcc doo sa passeport diplomate ba musoo caa tukki génnee neen ndeyam ci système ba bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg Californie waxal nit ñi nan nga ñëwee tey France ak lu la mënoon a teree dugg Allemagne wax ko nit ñi ñu xam ko waxal nit ñi ban nan nga ñëwee France te pourtant bi ma lay yóbbu ci Al Amin Fall pour mu lijjanti la visa de boobu man awma visa mais dama la ne man tukki dafa ma yomb ndax saa yoo jàppee jàng subhaanallazi asra bi abdihi laylan min al masjidil xaraami ba aaya ba jeex nga tëf li ñaan yàlla fu sa xel mi egg laal ci àddina dinga fa dem amul fu ma mébét te demuma fa al amin fall bëgg a dugg sa dossier ñu woo ko na ko kalifon den koo teg ci réew mi boo ci duggee am problème yow bi Macky Sall la paree ne du def troisième mandat bañ pare ci yow nga door a mën a génnaat waaye fekk Macky ngi amoon intérêt ci troisième mandat Kali ku ne xam na ne doo génn fooy jaar fan ngay jaar fan ngay jaar dama xamul fan ngay jaar kon aadamoo taal na maa ngi leen di bàyyi ngeen dem seetaani ko ma xaar kali suba bu liggéey baal leen ma yónnee ko ngeen dem seetaan aadamoo ñun ñëpp ngeen seetaan ko mais bis bu ma koy delloo ndawtal ak ci xewle ngeen xam ne yéen am sëriñ ba pare nag war ngeen a ñaanal kali njekk rest piis gi rest in peace gi moom war naa dal kali waa dem leen foofu capture kat yi aadamoo door na ngeen déglu ko mu taal mu kaa danaa ko tontu mais pas tey ak ni mu ko bëggee suma objectif mooy kali bàyyi bàyyi bugguma leen koo xañ xam nga man nante laa damay bëgg ngeen dem ci kaa yëpp bu la bu leen dara raw léegi su ma taalee du ngeen mën a dem fële léegi damay fay ndax ngeen mën a dem fële après bu may tontuwaat ma taalaat ngeen ñëw ñoo far on est ensemble <laughs> mais bu wax ji bëri ba ngeen fàtte ne maa ngi benn miel boo xam ne jigéen bu ko raay sa bajo góor gu la katt dootul la bàyyi xam ngeen lu tax ma defar miel bi mooy góor ñiy katt di bàyyi maasi Californie gi ak nekk góor mu lay laal te du la takk nekk ak sa jëkkër ni mel ni kalifon muy dem ci biti di katt te du la jox dara loolu laa bëgg mu jeex ci réew mi moo tax ma indi miel bi di ko jaay yéen ñi nekk Europe jël leen numéro bi ma leen di jox ngeen jënd tamu gaaw numéro bi lan la plus 34 603

plus 34 603 14 1648 képp ku nekk Europe jëlal numéro bi woote ci bu fekkee ne nag yéen a ngi Sénégal 77 la 285 38 38 nga laal ci mail bi bu dee góor guy lijjanti kayit laal ko laal sa tubaab bu dee jigéen ju bëgg a moom sa jëkkër wala sa far pour mu takk la laal ko du pour verser ku dul laalante waroo koo am. su dee Amérique nag bu ngeen wootee man mii ngeen di jot ndey bill gi ci ban numéro 929. 867 8643 929 867 8643 soo ma jotul rek bindal ma message na ma man la lii laa bëgg su ma paree dama leen di résumé le cas bi 929 867 8643 929 867 8643 kon su ma résumé cas bi tey pour ñu tëj ko ba xaar Kaliphone génnaat ma doxal neex cas bi mooy Kali na leeral takk suufu Clara bi eh, eh, eh, rakk bi ak Doro Gueye na leeral cas muy benn ñaareel ba na leeral kaawu ndax man ak moom demuñu woon jëndi nag pour mu liggéey doroge na leeral kaa ñetteel ba nañu leeral doomam ji bébé PDG la tudd wala bébé Dora wala bébé Kralla wala bébé Racky ñeenteel ba na bàyyi di wër di yàq deri waali ne day tëddee Clara ne day tëddee Clara na ko bàyyi waali kilifa la Clara kilifa la beneen ba na bàyyi di dugal ay jigéen ak nit ci laay fam te jàkkaarloog man te bàyyi toppkatikaay yi seetaan na leen ba na bàyyi toppkatikaay ñu mën a libre di commenter démocratie la mais ku commenter ñu miite la te man fii du ma miite beneen bi na leeral aji saar kan moo demoon pour katti ko muy gis régal mu maccal ko kan la donc lii mooy résumé bi leneen li mooy numéro Amérique bi 929 la 867 8643 kali bàyyil di bloquer nit ñi bàyyil di bloquer nit ñi ba pare bu subaa na nga leeral pourquoi ma live ba pare sa kër saf nga dem ci mbedd mi live ci mbedd mi nga taalee ci mbedd mi nga coupé te yow Kaliphone ku ne xam na ne moom sa kër ngay ngay nekk di live lu la tax a génn leeral ko nit ñi tàngaay seddaayu pare bi ngay tàng kon maa leen di yeewi ndante yi ngeen dem seetaani aadamoo ñu tëj kaa bi ba suba bu Kali génnee ma reprise defaat ko lu doy waar